alors alors suma mbokki Gambien si suma am di jàmm yi ñi maa déglu ci réew mi ñi maa déglu bitim réew man na Samsudeen Sarr maa dellu suwaat tey di àjjuma euh, ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru July 2021 waa démb euh, tey nag fi ma commencé mooy pour dëgëral rek leen ne leen démba ndemoonen um, dimbalen ɗon célébré 20 seconde july mo 20 seconde july ñaar fukki fana ñaar orule oruna lene ñaar fukki ak ak juróom ñaar yi passé ci july 1994 dimbal am ñaar fukki ak ak juróom juróom ñaar bis bi coup d'état bi amee ci dëkka bi bi changed government in PPP if you go back. tey nag bugg naa leen a wax man li ma xam ci coup d'état boobu parce que jot na rek euh, at least ko boo xam ne ñu fàttali ko la parce que man fekkee naa ko fekkee boo xam ne euh, bind naa ko itam bind naa ko euh, bi maa nekk Amérique toog naa ma binda li ma ci xam yépp dama doon wax nag suma bëgg bi ma ko tuddee coup d'état bu Gambia nation coup d'état bi Gambia national army di def you noonu laa tuddee woon suma bëgg bi waaye euh, bëgg bi dama doon wax suma life lu ma lu ma ci lu ma ci mel naka laa bi ma nekkee fi ma jàngee fi ma dëkk suma suma waajur naka lañ ma yare school yi ma dem you know balaa ma dugg ci aami bi ba bëgg ma duggee ci aami bi coup d'état bi ak ba ma génnee ci aami bi ni ma dooree di dëkk Amérique so bu bi affaire nekkul ne affaire coup d'état bi rek la waaye noonu laa ko tuddee parce que lu bëri dama ko ci wax ci affaire coup d'état bi soo ko seetloo sax euh, page 58 mooy soo compter page ici ba 58 foofu laa commencé di wax affaire yi coup d'état bi naka la defee demee you know euh, li ci commencé balaa boobu yëpp maa ngi wax naka laa génnee dëkk bi pour ut asylum nekk America waaye page 58 biñ maa interview ci immigration yi America bi nekk euh, in London London New Jersey foofu laa doon foofu laa joxee. kàddu gi di leen explainal coup d'état bi naka la amee parce que ki ma doon interview muy benn jigéen nit waaw daf ma doon laaj waaw man maa ngi wax ne maa ngi bokk ci coup d'état bi naka la ci coup d'état bi demee soo foofu laa ko expliqué soo tey dinaa leen waxaat yëpp in fact um, te li ma leen naa wax ne ku ne dama leen naa wax rek ne lii laay am kenn fekkeewu ko waaw man kenn naa fa nekkoon déedéet man li ma leen a wax dama leen naa wax yoo xam ne ñu ngi dundal li moo am ñu ngi ñu ngi ci dëkk bi soo laaj laajee dinañ la wax ne li ma laa wax dëgg la kenn mënuma fenloo ci li ma wax parce que li ma wax dëgg la waaw moo tax ma ne tey balaa maa dem démb nag gars defal nañ ñaan nañ ñaanal dëkk bi dem naa fekkale ci seen bureau bi muy APRC ñun ñëpp ñu daje fa. am fa kilifa yu baax sëriñ yu baax ñoom imaam Cissé imaam yu baax a baax a baax ñu toog ñaanal dëkk bi ñaanal réew mi ci jàmm am fi ñaanal mbooleem ku fi nekkal kilifa yi dëkk bi yëpp including ñu gouvernement bi pare gën a ñaanal nag président Yaya Jammeh pour fa mu nekk ca Équatorial Guinée ak njabootam yàlla dimbale ko ñu ñëpp ci li jublu mu dellu si waat ci réew mi. ci jàmm ak salaam ñu teral ko ni président boo xam ne nekkoon na fi yooyu yëpp yëpp yaay ñaan nañ ko pour yàlla dimbale ñu ko jéem mu am wax yu rafet fa nekk nag yoo xam ne man sax dama rus sax parce que you know dara daal gënul ngeen di fàttaleku ay mbir di ci def ñaan yoo xam ne pour réew mi la pour ñu ci nekkoon ñëpp jàmm am juboo am fii waar loolu dafay am loolu laa bëgg waxtaanee tey nag. dinaa leen waxtaan man li ma xam ci coup d'état boobu you parce que tey jot na pour ma explain ko parce que maa ngi dégg wax yu nekk waaye man nekkul ne dama dégg lii man dama nekkoon ca digga ma coup d'état bi bokkuma ci woon na bind naa ko ci suma book bi 2006 bokkuma ci coup d'état bi fekk euh, bañ ko palaan yëguma ko ñàkk ko palaan bi xawma ko waaye bési coup d'état bi ci boppam ba ñu ñëpp dajee State House bés boobu laa toog Edward Singate njëkk a maa wax naka la coup d'état bi amee ñu ñëpp ngi toog te dinaa leen wax ña fa nekkoon Major Antuman Sakho mu ngi fa woon bi Edward Singate di wax loolu capitaine Mamad Cham mu ngi fa woon bi Edward Singate di wax loolu ñu xàmmee naa leen kii um, Serif Mbay muy woon meejo nekkoon gendarmerie mu fa woon ak ah, yu bari waaye ñii mun naa ñetti officers yi mun naa leen a ne ñu fa of course um, président Yaya Jammeh mu fa ndem si yàlla si capteur bu mur sonko mu nga toogoon waaye officers yu bëree fa nekkoon te foog naa ne ko moom xam naa ne mu ngi fa woon yàlla na ko yàlla yëre moom itam waaye ñu na bina binte foog naa ne mu ngi fa woon óoruma waaye foog naa ne itam kii soirée mu ngi fa woon soo dinaa leen jox ñoo xam ne nit ñoo xam ne ñi soo leen laajee dinañ la ne lii lu am na waaw ma lii dama waxaat ne ñi leen fa woon E-, dañu woon Singhate di ñu expliquer li xew te kenn wedduwu ak Basiru Baro Basiru Baro dem si yàlla si mu ngi fa woon lieutenant mu ngi toog waaye nag balaa ma wax affaire bi dinaa jëkka euh, maa ngi gërëm ñi nga xam ne démb yónnee nañ ma message affaire parce que laajte naa leen question ci affaire yi vaccine yi coronavirus bi coronavirus vaccine bi nan la laste ak yooyu yëpp mu am na jigen yu baax ku nekk amérique yónnee na mané ne fan yi fan lé passé mu ngi déglu sax si gana gi dem na sax ma ri da way mu ngi dégg vaccine bi pour coronavirus bi ben at rek la wara am ci sayaram bi pour mu la wallo su passé du la mën té wallo ci affaire coronavirus bi coronavirus bi mu ngi change di change rek kenn xamul naka la mel in fact ñu ngi wax ne xam nga ñu ngi wax ne am nañ Pfizer Pfizer am na AstraZeneca bi am na biotech ak um, am na beneen bu ñu wax waaye yooyu yëpp vaccine lañ waaye Johnson and Johnson bi ñu ngi wane na sax delta uh, uh, uh, variant bi delta variant mooy coronavirus bi génn ees bi ñu ne xam nga South Africa la jógee boobu ñu ne. lifin bi Johnson and Johnson bi bi ngaa jël benn kii bu rek mënut ci moom dara soo ñi ko jël am nañu waa dañ indi nañ ko ci dëkk bi am nañu ko jël su ma am ne jël nañ pat euh, naka jël nañ euh, Johnson and Johnson bi waaye ñu ngee wane ne delta bi jëm ne nii bi giteen dëkk bi serious bi koo laaj mu ngee saxat mu ngee s ñu ne boobu Johnson and Johnson bi mënu ci dara moo tax am na suma benn xarit bu benn waay bu baax ku gaañu bu yàggul ma nee naa laaj lan la baa jëloon nag vaccin bi ñu ne ci ñi ko ñi ko njëkk a jël la dafa oose kër ñu jël ñëpp mun naa am Johnson and Johnson bi la am mu ñëw jël daal delta virus bi ci li ma day gàttal soo gisee coronavirus bi dina yàgg ci àdduna bi ba tey xamul jàngoro gi naka ki ma wax Amérique sax daf nag li ma riir sax gannaaw gi dañ li leen mun li mun a garanti ne soo jëlee vaccine bi dina la mun a wàllu dina la mun protect mooy six months juroom Ben, juroom Ben weer rek dégg naa keroog town hall meeting boo xam ne Joe Biden président Amérique bi daf ko am ak ah, kii um, uh, um, uh, what's his name again mooy um, one of the CNN host eh, naka CNN host Don Lemon waaw mu ngi koo laaj Tony Lemon jaagul fan yii rek mu am gars wax affaire coronavirus bi ak vaccine bi ak gan américain si bañ a jël ay million million américain si dañ bañ a jël parce que óoluwuñ ko waaye dëgg la parce que benn tey gars ya ngay wax ne xamaguñ lu leen reer ci vaccine bi sax naka def ci fii parce que li ñoo jàngala wala dooñu ngay wane ne ku ko jël dina la wolu waaye soo ne suñ la ne ku jël dina la wolu ba pare ñuy laa wane am you know dafa teeyal xel moo tax ñu bëri ragal ko mu am nag benn black benn benn black woman parce que ñu ne nit ñu ñuul ñu nekk Amérique ñoo ko gën a bañ a ñoo ragal a jël ñu bëri dañ bañ a duñ ko jël soo mu am nag benn ñu boy ñaari ñoo xam ne dañ sëy ñu nit ñu ñuul ne yow ñu ñor di wane ne di wan Joe Biden ne soo gisee nit ñu ñuul ñi. ñeme ñuñ vaccin bi mooy ne lii dafa mel ni yëfi tubaab la rek parce que ñiy wax affaire coronavirus bi ñiy wax affaire ay euh, euh, vaccin bi ñiy wax ne ñoo ko liggéey ñi ay tubaab rek nga faa gis doo fa gis nit ku ñuul koo xam ne te du am en lu tubaab moom nit ku ñuul na ko fa waaw dafa mel léegi moom Amérique moom lu tubaab moom nit ku ñuul na ko fa. waaye dafa am benn tey tubaab ci ci si récissime di jéem a wane ne ñoom ñoo gën ci nit ñi am na yoo xam ne dañu ko ba léegi na sax ñu ne dinañ ko jox wan ko South Africa naka lañ koo defee ak India waaye ñi defaroon vaccine yi parce que dañ ci doon ut xaalis dañ doon bañ bugguñ woon kenn xam naka la ñoo defaree vaccine bi moo tax ñu bëri óoluñ ko ba pare ñu ngee wane ne vaccine bi soo ko jëlee yeneen soo jëlee lu mel ni weñ soo ko tegee fañ ko teg daf koo jàppal mel ni ay mag nekk la wax ji daf ci bëri ba pare yu bëri óoru nit ñi moo tax nit ñi ragal a jël vaccin yi soo li ñoo def rek mooy ñu moytu ci waaw euh, parce que vaccin le virus you dafa dafa daf day jël lu yàggaa yàgga balaa koo def waaye bii dañ ko ros parce que mu ngay xalaat doomi aadama yi so euh, moo tax démba am naa ci nag lu wóor mais Euh, lifin bi daal euh, naka vaccine bi daal soo gisee nit ñi dañ koo jël daal dañ ko óoluwut ba pare te dina fi yàgga yàgga boo xam ne parce que dina fi yàgga yàgga boo xam ne yal na ñuy ñaan rek yàlla musal ñu ci rek you léegi lañ you know waaye li ma wax rek tubaab yi loolu la ndaw si wax black man woman mu ne ko lii dafa mel ne tubaab yi dafa koo toppatoo te tubaab li liñ def ci àdduna liñ lor ci àdduna kenn xamu ko yaa yaa doo xalaat ba pare amoon na you know euh, benn expériment foog naa ñu ko tuddee woon su ma fàttewul euh, Tuskegee expériment boo xam ne dañ jëloon ay nit ñu ñuul di jël ay jàngoro di ko test ci ñoom biir Amérique tay bi affaire tay bi jaam yaa bi nekk Amérique tubaab bi dañ daan jël ay nit ñu ñuul di test ay garab nit jaamaan si naa si jaamaan si daan def juus noonu lañ daan dem di jël ah, ah, africain si nit ñu ñëw ñi di leen tes ay garab yooyu yëpp dañ ko ci xalaat ne nit ñu ñëw ñi dañ ko ci ragal soo loolu tax nag mbas mi dañ ñaan rek yàlla mu sant ci ñuy ci moytu rek waaye lu yàgg ci àdduna si la because nit ñi benn tey óoluwuñ ko waaye kontaan naa trop ci ki may yónnee eh, information boobu préparé lii naa yu bëri ci affaire yi um, naka la coronavirus bi ak vaccine bi waa loolu nag balaa ma ñëwaat ci book bi nag may euh, again may gërëm aji betti seen démba jënd naa thirty four books ci suma book si miit mi it Conakry ñetta fukki book ak ñeneen yoo xam ne mu ne autographe ko ñaar waaye yëpp daf ko distribuer pour ñi ma laaj ci school si ñoo xam ne mënu ñoo jëndal waaw ñuy ma jox leen ko am na nag yoo xam ne ñu bari am na school su bari laaj nañ ma you so ñii dinaa leen utal bés ma dem présent leen ko oo you know ma jox leen ko rek parce que um, euh, naka la tuwaati démb la ko yónnee may koo gërëm nag bu baax a baax a baax a baax you moom it nit ku baax la jigéen ju baax la muy sister lay seen honorable lay seen you know euh, moom APRC daf ci bokka saf ci ñor ci ba pare am ci xel you know nit ku nekk jigéen ju dal te ku baax nag ngaa bàññu yëpp ko dee gërëm ci yu rafet yi moo def ci dëkk bi yow su daf ma bett démb nii waxoon na ma ne danaa jënd books pour may ko school si waaye ah, démb bett na ma am na ñu bëri itam ñu ma koor yoroo benn tey ne dinañ jënd APRC nag waxoon ma ne <laughs> waaye benn tey mag leen en ah, xaar waaw bu bu Obama boobu laa ko tas parce que boo ko doon leen na ko toppatoo waaw nga nag ci affaire may leen am bi ma ñëw nag ci affaire July 22 ci suma book bi coup d'état bàyyi di Gambia National Army bu ma nekkee euh, ma bind 2006 soo commencé page 58 you know um, di nga gis maa ngi explainal immigration officer bi ma doon interview li ma xam ci coup d'état bi ak ni mu amee te ni ma ko waxee rek mooy ne maa ngi yëg affaire coup d'état bi. dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri july 1994 dimanche 17 ci laa ko yëg ci ki ñoo wax Akooji Akooji mooy woon Nigerian commander bi doon toog di nekkutoon commander sax moom moo nekkoon administration moo amee woon administration ne bi Nigerian bi waaye moom moo toogoon di. utu palasi commande bi parce que time bobu nigeria yi def ci dekk bi ñu ngi ci ci reere reere seen digante lima len waxon waxoon rek saadaaw da dafa jëlon ay foreign troops indi len ci dekk bi pour ñu ul to ko muy nigerians bam ko jël ka fa nekkon di de nigeria moy won babangida babangida xaritam la ñu déggoo ba 1992 bi ñu jaaxlee ci affaire yi aada bi parce que 1990 wóor na leen ne ci aada bi démonstré nañ def nañ démonstration ci dëkk bi time boobu jaame sax mu ngi mu ngi gendarmerie 1991 ñu defaat beneen démonstration boo xam ne dafa tiital réew mi yëpp dañ doon wane seen xaalis lañ leen fayu waaye ñun yëg nañ ne ñu ngi ko luñ plan la pour coup d'état lañ bëggoon ñu ko plané Libéria mais dañ bëgg a coup d'état you know parce que ni lañ doon traité parce que saa daaw la time boobu PPP jël nañ leen fii di leen yóbbu ne leen def leen def peacekeeping Liberia ba pare di leen di leen fay ay 3 dollars ñetti dollars pour fan xaalis bi nee naa fay doy li ñoo lekk doy ba pare ñu ne leen ku dee duñ la suul Gambia ca àll ba laa suul naxar boobu yëpp bokkoon nañ bi ñu meree nguur yi man su ma fi mënoon a génne nguur gi attaques yi dinaa ko génne. PPP waaye nag du ma ko mus def ci coup d'état parce que man ànd ko ci coup d'état su ma bëgg bi sax war naa ko même tey coup d'état óorut coup d'état ñu koo def risque bu mag a mag a mag yàlla rek moo dee musal yéen ay coup d'état dem trop unless mu nekk populaire coup d'état boo xam ne dëkk bi yëpp a jóg ne buggaatuñ réew mi li def Mali di def Burkina Faso yooyu xëy na waaye coup d'état jóg plan ay soldat ne kaleen ñu taal réew mi jël réew mi baa ñu lakk ko loolu moom ànd ci mooy coup d'état so um, uh, so wax naa ko ci suma buum bi ne bokkuma ci te ñu bëri gëmuñu ma woon nag dégg naa ku mel ni Samina Traoré ñëw ci coup lifin eh, bi TRRC bi bi saam saam moo nangu rajo bi rajo station bi waaw moom man jël naa moto dem ca rajo station bi waaye xamul dara ma fay yóbbu waaye su doon rii xëy na dina doon jënd suma bug bi dina riid dina xam la ma yow ca ca ca radio station bi da tee you know ba pare sana saabali ma nekkoon ca ndayin bi la ma bañ ko laajee ci TRRC bi ndax saam saam bokk na fa ne man laa mujjee wax affaire coup d'état gars yi ree naa waa soo ko waxee daf koo soo ko waxee daf koo wax nit ñi du loolu affaire yi wax nit ñi yéen da ngeen ñorade rek yéen ngeen coup d'état ngeen bañ coup d'état ngeen saa Sana Sabally nekkal second lieutenant waxuma lieutenant second lieutenant gën a tuuti ci affaire office man may capitaine ngeen laaj ko lu tax ko mu ne laa ko wax a lu tax xam parce que Sana Sabally doful jinne càpp ko mu fekkam suma office ma toog mu ne ma dafa bëgg a organise coup d'état te jàppuma ko kenam waaw waaye xam nga soo amee you know moo tax bés boobu ñiñ yàpp ña nekkoon yulum barracks capitaine ya yàpp ak nigerian seen yàpp moo tax ñu jóg dem ci seen compagnie yi jël seen cap compagnie yi organise coup d'état il faut forcer benn capitaine Sané foog mu bokk ci mbaa ñu tëj ko dañ leen yàpp soo moo tax bañ ràññee Sana Sabally lu tax Maodo Sam lu tax Sam Sam bokk ci mu ne leen du ma ko koy di last time da ngeen war a xam ne nekkul ne. affaire yi dama koo wax non su ma ko waxoon dama koo jàppalante waaye parce que gomuma coup d'état waaye li ma laa wax rek bés boobu la bés boobu muy dimanche tay boobu Nigerian ñu ngi ci coow rëy you know parce que Jawara Babangida bi mu jëlee woon soldat pour mu ñëw ñu protect ko Babangida nekkaatu fa Abacha ñëw jël ci babar gi na gi neexoo wut ak jawara parce que jawara ñu ngi ko naan démocrate la babar gi na ñu ngi ko naan dictateur la ba pare jawara ragal a wan àdduna si ne kii moo ma jox suma soldaar yi ba ba ba ca xam ko daada bi yónnee woon Babangida pour make sure ne coup am ci dëkk bi Babangida ne ba mu fa jógee Abacha jël dafa te dafa génnee daala yónnee Guadeloupe Guadeloupe nga xam ne coup d'état lu musa am Nigeria bokk na ci kooku la bëggoon a indi pour mu jël ci daala daala nag xam loolu ne lii dañ bëgg a réew mi te moom liggéey ci dëkk bi du ko nangu gannaaw gi nag mu ne moom balaa moo génn réew mi dafa bëgg a dem taaj ak jawara wax ko ne man de Essa Dawda ah yow kiñ laa yónnee lii la de te man ba ma waxal ba ma kii dafa ne dinaa la trainal army bi suñ paree dinaa la ko jox in two years you know waaye gars yi bañ bi kii ñëwee Guadebe gars yi bañ ne jawara du gis jawara du gis daara xuloo bi ne mun man ma captain Kasama li ma nee naa wax de li ma wax nii captain Kasama ADC Saadaada bi laaj ko. dem nañ ci Saara Diakha dem nañ ci Bun Diakha di leen ñaan di leen wax leen rek nañ saa daaw da wax daada rek ne ko waaw man mënuma ci dara du fi am su mu ñëw gis Seexu Saaba rek ko koy defense ministre dëggale ko plan itam ñu complète dëggale ko bi na ko ci mu bi ne loolu musuta xam ne problème amoon na ci Nigeria si bés boobu ci ci diggante boobu nag Goa demee itam mais du jël moom lay yónni jox nañ ko leetaram ne ko nañu jël ci daada daada ne du jël te gisul jawara mu ne moom itam du jël ami bi te daada xàndul ko uba officiel yi wax ko ne nii la demee parce que xamul lu daada doon def moom itam mu ne du jël mu dem toog ca hôtel ba mun naa keera bala mu benn hôtel lañ ko keera bala mu dem toog ca hôtel ba daada itam ne du ko ko jox ba gisul jawara waaye ñu jël commande nekkaat fa commande mu dem tokkiram mu dem tokkiram coow loolu moo nekkoon ci réew yi ñu xamuñ ko te yooyu loo dee togg ak coup d'état soo ci diggante boobu nag gannaaw gi ku waa ni jóg fii ak plaine ànd ak owondo bi mooy woon opération commande ne ñu ngaa dem boole ci Nigeria bañ demee nag ci diggante boobu la plan coup d'état bi commencé accord yi mu leen doon xaar moo ma ko njëkk a wax muy on the seventeen on the seventeen July moom moo ma ne dama demoon tàbbe mu ngi américain si dañ waroon naa ñëw pour ñu exercise ñaari at yu dañ daan ñëw seen biir bi indi seen bagage yu ees nga xam ne dañ leen jënd ay seen jumtuwaay yoo xam ne pour xare la yoo xam ne dañ dee ñëw fii Tesco ñun train na ñun ñaari at yu nekk dañ daan ñëw ninety ñëwoon nañ ninety two ñëwoon nañ ninety four nañ waroon naa dellu si ñëwoon nañ sax ba fii bi biñ egsee nag euh, bi ñoo ñëw noonu pour ñëw na ñu commencé pour seet training bi naka lañ koo defee man maa ngi woon ministry of defence fa laa nekkoon parce que da war a xam ne Nigerians

du ma man maa jël force soldat yi yëpp xam ne ko man lañ wax ne maay di best waaye soo ne woon tay bi jawara koo leen gën a ëllëteeku ci armée bi ñu ne la Samsudeen Sarr parce que ñu ne kii dafa jàngal lu mu wut ci armée bi parce que ci armée bi ku jàngal waru faa nekk boroom doom ju baax waru faa nekk ku am barke waru faa nekk ñun ñëpp mooy ñi nga xam ne doom doo dool lañ amul dara jànguñ loolu lañ fa gisee woon man ma nekk koo xam ne nag dama dem jàngi ñëw. bokk ci armée bi parce que man liggéey laa doon liggéey bu baax gis na xëy na British yi ñëw dinañ ñu organise seen liggéey bu baax parce que man xam naa dëkk bi naka la meloon balaa maa dem ticca laa woon so loolu waaye soo leen ne koo gën a óolin dëkku ñu ne sam Sirif ma ko sax am na benn senior bi bi officer mu ngi Atlanta mu ne ma Sarr ñun suñ toogaan yow rek lañ daan waxee laa looy ut ci armée bi kenn la soo xam naa ne bañ dee ne kii mooy di pers ñu ne kii bu ko commission óolu pour jox ko armée bi ñu jël ma nag yóbbu ma minister of defence ministry of defence foofu lañ ma yóbbu man ma nekk communication diggante communication armée bi ak gouvernement bi foofu la ma coup d'état bi fekk soo bés yi bés yi 17 muy dimanche bi ak wuñi bi ma demee ci office am pour ñu seet naka la liggéeyee ak american si ci la ma wax ne Sarr yëm na ñu dañ dégg ne dafa am les soldats yaa ngi organise plan pour def coup d'état yundum barracks yi maa wax nii nag yëpp dina laa ko ci suma bopp bi ma ne ko ah mu ne ma waaw waaye akoo nag moom lañ daan wax ne moo gën a xereñ ci Nigerian si duma daan juboo moom parce que maa xereñ parce que dama naan doon akoo ji akoo dafa dafa dafa mënoon a lakk àngale dafa mënoon a bind àngale ba pare dafa muusoon akoo ji da ñëw gis lu weex ne ko lii dafa weex mu wax ba génne la ci ne lii dafa waaw d'accord naa ne dafa ñuul mu mun naa la ci lu weex la yow nga loolu la meloon saa saay la woon rek waaw akoo ji soo man dama foogoo ne dafaa caaxaan rek parce que gannaaw gi man maa moom caaxaana nekk su tasee man de hey Sarr yow hey Sarr you know so ñëpp ragal ko la akooji <laughs> la kool moom xamoon na ni man ragal ma ko ci dara mënoon na binda nag waaye xam na ne man daxuma binda moo tax moom moom sax suñ exemple yi ñu moom moo ko màkk moom moo suñ exemple waaye ba pare ba pare ci exemple ba ñu taajee dafa ne man paper bi ma binda moo génn ci armée bi waaye sax man awma xon sixty percent rek laa am sixty sixty nga xam ne pass boo xam ne la ñu la sii la maa ngi bind di mu ne man rek am sixty percent ñi ci ay fifty forty ta jàpp sew la ñëpp including di doon coow yëpp ne dañ xam dara maa ngi fàttali ko so dama foogoon ne rek dafa caaxaan mu ba ma ne xaar yënga ne coup d'état dafa gaa yaa ngee plan coup d'état ma ne ko koo njëkk ma ne ko saa coup d'état mu ne ma yees fekk ñu man maa ngi yoon pour wax ko affaire américaine si naka la ñoo seen training bi naka la ñoo seen programme bi dañ war a seet si ki naka suñu excès ñu ngee war a njëkk a dem visite yi Sékou Sabali mooy woon vice président suñ fa jógee ñu dem mayor of Banjul foog naa ne James Gomez fa nekkoon sax de pare dañ waroon a am activité ci ci ci ci McCarthy Square by then you know ba pare dañ waroon dem ci néegu unit bi parce que dañu amoon ay guns ñaari fifty calibre machine guns pour patrol boat si yoo xam ne dañ ko jënd pour ñëw mbéy ñu ko ba pare amoon na gaal pour ñu ko ooyee bolom kanta boobu itam dañ ko jëndoon pour mbéy ñu ko dañ am benn pour Gambie benn pour Sénégal benn pour Guinée Bissau ki fi nekkoon mooy seen military attaché bi Dakar la nekk ñu naan ko Major McLean kooku ñëwoon pour ñu def cérémonie bi suñ paree so lii waxuma ko ci affaire air bi daal waaw gis naa lii non man naa wax li xem te lii su leen ko vérifié ñi ko bañ a xanaa ñuy bañ duñ wax dëgg waaye lii moo am so bi mu waxee loolu ma ne ko coup d'état mu jékkee-jékkee mu ree mu ne ma xaw ma tax sax yow saar may laa wax affaire ku dem sax ci nga bokka waaye benn tey may ñu ne ah koo ji dafa jóom waaye ñu waxtaan ba pare ba ma génn di dem benn tey waxut mu jéem story bi ma ne waaw ah xëy na itam as much as dama dee xam ne ak koo ji dafa xaaral ëllëg man su ma demee dinaa dem ci permanent secretary bi muy bon jaar ma wax ko ko ne ko lii la ma ak ji wax ndax yëg nga ci dara muy nii londi ci suba eighteen eighteen July ma xëy duggal suma eggal office Banjul State House la suñ office bi nekkoon moom office sama nga woon ci kaw man su office am ci suuf waaw su office sama man ci kaw suma ci suuf suñ moom mooy woon permanent secretary bi deputy permanent secretary bi mooy woon Oji Salla ay ay principal officer si you ñoom Essa Kane ñu ngi fa woon xaw ma sax nag instant faral nañ ak there was this Cole Amadou Cole bu Amadou Mr Cole yal na ko yàlla yaram keroog laa dégg sax ne ndekete moom gaañu na bu yàgg sax waaye ñii ñoo nekkoon ci office bi dama egg ci suba jiw dem office yi euh, Bunja mooy mooy permanent secretary woon ministry of defence ma dugga parce que tay boobu ñoom nag. dañu fa bëggoon a génne sa state house parce que time boobu man leen naa wan ne leen ah Nigerian si niñ organisé army bi yéen a ngi ci kontaan de si fi mu nekk li army bi daan jóg di def démonstration gendarmerie yi di leen stop au oh, police di leen stop léegi mënatuñ ko de parce que army bi storm na storm bés bu mu lu leen neex la def ci dëkk bi ñu ne lu tax may leen a wax loolu. Mr. Bensouda Ahmed Bensouda moo woon permanent secretary president's office ndax ma taaj office am amul xas ko moo woon ne kon maay man yow yaay kan saar yow capitaine nga rek ñu fi amee ay Nigerian général ay colonel ñooñu waxuñ ñu naka la ñoo ko wax ñu soxlawuñ sa sa sa ñoom bu jàpp yëpp yëgoon nañ loolu soo ma duggee office am keroog ma ne ko ah man de dama demoon ci akoo ñu démb ci woon affaire training bi you know mu ne ma waa lu xew ma ne ko ah man de daf ma wax ne dafa dégg dégga ne dafa am ñuy plan coup d'état ci army bi Europe barracks ma yëg ko ku ndax wana la ko ma ne dafa ma xoolaat ne ma waaw Sarr yëg naa ko waaye ñu koo toppatoo dama toppatoo sa soxla man billah lii la man doon jaar wax ba pare sëgga bugaat ta waxtaana man sax ma waaw comme des something is going on loo xam ne xaw ma ko am ah. soo ñii li ma laa wax ni PPP government bi soo waxoon kan ngeen gënoon naa ragal ci dëkk bi ne ku kuy war a jël coup ñu ne la sam Siré ma dem suma office te waaw lanay xew ñoom dëkkate bi waxtaan nañ ñu ne gannaaw gi lay yëg ne moom bun jaar yëg na ko Kéba Cissé yal na ko yàlla yërëm mooy woon directeur NSS yëg na ko ak koo ji ñoom ñett ñi ñoo doon dox affaire bi pour seet naka lañ koo defee naka la ñoo seetee naka la ñu ko storé ñoom xamul naka la ñu ñoo def kenn waxu ko you time boobu li ma la wax rek Nigerian si yaa ngi jaxasoo kenn xamul boppa bee geen gi man xam nga loolu su ma ko xamoon dinaa wax dinaa doon waxi uh, kasama ne ko kasama naa ko ne coup d'état ñu ko wax waxal saa daaw daa ne bu mu dem fen ñu ngee wax affaire coup d'état ci dëkk waaye dañ ma ko nobal parce que Issa Daawda mistake boobu la defoon 1981 ba ñoo def coup d'état ñoom Bojang ak ñoom gars pour pour pour pour organise coup d'état coup koy ci la jógee dem ba dem dem dem dem Angleterre mu ngaa dem ca Prince Charles Charles wedding bi foofu la ko coup d'état bi que su ma ko xamoon ko dem bul dem waaye dañ ma ko doon nobal soo ci laa jóg ma dem suma office. ma kool yundum barracks parce que yundum barracks laa nekkoon maa ngi amewoon tay boobu kayit yu jógee Amérique kayit yu jógee Amérique yoo xam ne ñu ngi wane ne Peter Singante mu ngi train Fort Benning Fort Benning man fa laa jàngee military suma military suma force military school ma ko defee Fort Benning ñoom Edward Singante yëpp foofu lañ demee ñoom Sana Sabali yëpp ñoom kii naka la tuddaati euh, baro basiiru baro ñu bari Fort Benning lañ demee def fa suñ military school ñoom John Sinn Lawrence Jara biñ demee you know euh, time boobu kii moo fa nekkoon Peter Singati di def infantry officer basic course lañ dee def foofu ñu ne ñu binda ñu nag leetar ne moom mooy woon di best foreign student loolu kii amoon na ko sax Johnson capitaine Johnson ba mu faa nekk Among the best foreign student foreign student mooy ki nga you know eh, because foreign students yi dañ ñëw together ñu leen a assess different from Americans Why waaye moom dañ ko assessé dañ ne he was the best dañ daan am students from Egypt from Yemen from uh, naka la African countries yi Sénégal sax dañ am ay foreign students Why he was the best foreign student ñu. maa ngi amee woon leetara soo ma ne ah bii de moom dinaa kool kii naka Edward ma wax koo ne ko sa sa broda ndam bii la def parce que ñu ngi bëggoon a bind pour comment ko maa ngi bindoon sax pour wan ko ne def la liggéey bu baax ma ne xaaral ma kool ko moom de su ma ko waxee lii dinaa ko laajaale lay xew ma kool offices Edward Singate mu ne ma ñu ne ma dafa génn dafa génn mënuma koo am time boobu xam nga cell phone naa ko télé cell phone amul li fi na amoon line line yi ma koor foofu aw ma ko ma ah su dee coup d'état dafa am Jibril Sey time boobu waral officer la foog naa ne sax non staff staff sergent sax la woon sax ma kooku moo nekk ci ci compagnie bi bi amee gànnaay yu ponkal yu am doole te suma booy la woon ñun ñoo nekkoon kaatoon ci affaire confédération bi day confédération bu nekk mooy bu yaru dinaa ko kool ma laaj ko lan la you know ma kool ko non in fact njëkku kooluma kii naka Jibril Seydou moom laa mujjee kool ki ki ma ci teg ci kool mooy lieutenant Gomez muy naan ko Sirif Gomez léegi bokk na ci foog naa national security team bi affaire yi security sector reform di gën a eh, nañ ko yooyu ca la nekka moom laa kool mooy woon ajotan bi ma ne ko sirif mu ne mën naa ma ne ko akoo ji laa doon waxal mu ne dañ dégg ne gars yi ngi organise coup d'état ci àll bi mu wàcc ndeyama bàyyam ne loolu amut mu ne ah waaw il faut dafa ma bëggoon naa mere sax ne loolu man mun naa koo xalaat te ñoom ajotan nga ajotan ajota mu ngi mel ni kooku amee affaire administration yi camp bi lu fa war a xam war na ko lu fa war a def war na koo xam you know ndekete moom ñu ngi ko koo moom xamu ci dara daf may wax loolu parce que moom mooy ajotan te loolu su waroon naa am dina xam you know ma wax ne ñoom liggéey lañ fa nekkee you ma ne ah xaaral ma kool doo kii ah, ma kool jibril sëy nga xam ne suma booy la woon kooku dina ma wax li xew te kooku ci xememe pon bi mu nekka su fa nekk su ci bokkul coup d'état bi to am ma kool ko moom mu waatal ma ci ndeyam a bàyyam ne xamu ci dara yëgu ko te su ko te xam na ne coup d'état dafa mën a am te du ci bokka te su ko yëgee dina ma ko wax man ci laa tëj caxta bi ne coup d'état amatul coup d'état amatul ba on the 21 Thursday tey boobu pare nañ American si egg si nañ ñu ngi prepare ne ëllëg la ñoo exercise ñun ñoo ñoo gis nañ seen tànk si MB Sarr moo leen jële dem naa ci port bi gis naa seen amphibious tànk si mooy tànk si nga xam ne dañoo xeex ci géej gi di xeex ci jëri ñu taal wan ñu ko tey boobu man maa maa Burja ak American ambassador Andrew Winter James Knight Major McLean you know ak si captain bi ñu indi sax ñu naan ko Buhar ki ki amee gaal gi ñëpp ñu taxaw gars yi taal seen machine yi wan ñu ko ñu waxtaan ak ñoom ñu am fa réception ñu ne ëllëg la exercise bi maa ngi ne jeex na lii moom ëllëg moom dañoo doxal ci guddi gi li fa suma jabar dafa demoon seen defar kawaram gi parce ci àjjuma ñi ci guddi dañ waroon a am réception boo xam ne lu mel ni parti boo xam ne American ambassador bi Andrew Winters moo ko organise woon invite ay dignitaries ci dëkk bi ay ministers ak ay you ay ay borom maa xam ci dëkk bi ñu boole ci parce que man maa daan jëflante ñoom you know président Jammeh dina leen wax ne <laughs> man maa ko toppatool sax pour mu dem Amérique su billahi wallahi tallahi man maa ko toppatoowal pour mu dem jàngi America military parce que moo ñëw ci armée bi defutoon benn su dañ ko daan tooñee loolu sax ne officer bu amul ga am garaat ba pare jàngul affaire military man maa ko ko toppatoowal mu def bés bi ma ko joxee ne ko di nga dem dafa ñëw bi ci suma office ne ma saar li ma defal nii su ma ñëwee dinaa la bay nag billahi wala man du maa fekk sax yii yëpp dina naa ko ci suma bopp ma ñu ñu ñu toog foofu ci ci suma jabar dañ waroon naa am li ma la wax rek dañ waroon naa am réception ci guddi googu mooy ajuma ci guddi mu ñëw ne ma xam ah nga day dama demoon ci salon bi waaye dafa am man ku ma fokkoon suñ benn jigéen because kooku mbokkaam la jëkkëram am ma xam ci rifet bi kon mu ne daf ko dégg ne dañoo organise coup d'état dafa am ñuy organise coup d'état ci am ma ne ko non wax nañ ko bu yàgga loolu amut man fay naa amul dégg ñu tay boobu affaire baa ñu wex xat ñu ma koo ndóba ministry of defence ma nekk ñu ma koo ndóba bul jaag akoo ji Kéba Cissé ñoo police yi ñu bëri yëg nañ ko man yëguma ci dara ñoo presse jaay ñoom ñëpp yëgoon nañ ko waaye yëguma ci dara maa ngi naan ah lii daal waaye kacaw kacaw laa doon ba bési coup d'état bi ci boppam ma xëy ci suba. dem ci port bi man maak American ambassador bi ak député bi Andrew Winters mooy political adviser bi Major McLean ñun ñoo dem jëli Major Bokar ak marine capitaine bi pour ñu ñëw nuyu si nuyu si kii euh, pour ñu ñëw nuyu si vice président bi muy Seku Sabali bañ duggee. existed house bés boobu sax Chinese ambassador bu ees mu ngi ñëw pour hand over letters of credential ci lañ ko ñëw credential ci la ko waroon naa hand over da dee ci lañ dugal si man man dama gis dama gisee kotagaan bi sax dama foogoon ne pour pour major la waaye man laajte ñu ne ma non Chinese ambassador mooy def mooy ñëw pour def euh, euh, mooy present letters of credential ñuy wàcca di dugga ca la ma captain kasama kool may dugal mu ne ma saar saar saar mooy ne ko mu ne ma kaay dama la bëgg a gis ma ne ko noo gan yi laa am ne xaaral ma pare mu ne ma non non non gaawal nga ñëw man xoolee noonu te musuma waxee loolu ba pare ma ne kasama ak gan yi ma àndal nii moom ak li sérieux ni su ma koolee am na lu xew ci laa ne gars yi nañ ma mais one minute ma dem déglu ko mu ne ma dégg nga li xew ma ne ko déedéet mu ne ma. dégg nañ ne Yundum Banna soldat yi dajji nañ armée bi armée bi jël nañ weapon si ne ñu ngi ñëw pour organise ma ne ko ay serious mu ne moo waaw li génn ci man xaw ma ko ma ne ko waaw mais one minute ma ci laa jóg ma éeg àndaakaay bi dugga fekka ñu egg ca bunta ba fekk bun jaar ci boppam ñoo xaar ci bunta bi ñu egga ñu ubbi bunta bi ñoom ñëpp ñu dugga kii kii Seeku Sabali vice président mu welcome leen ñoom ñëpp ñu dugal bi ñoo dugal noonu ma ëlbatiku ne pour jàpp ma dégg dafa dégg ne ñu ngi dañ soldat yaa ngi yu ñu ngi bu dama yeeyee yee yëpp nañ ko ma ne waaw addomitas ci boppam gis na ci digg xaw ma nag moom it dafa xamul luñ xamul you know waaye gis naa mu xool ñu ñun ñaar nañu lu xew waaw lana xew baru da ngeen am problème su dee da ngeen am problème ñun mun nañoo dem dellu ci gaal gi bi ngeen soog ko aw lii la afro wi tas wax seebu saabali ëlbatiku ne ko déedéet wel problème bu ndaw la waaye excellent xëy na sax mun nañoo laaj seen dimbal ci problème bi man ci laa ne bul jàpp maa ngaa dem ci suuf seet lan laay def mu ne ma waaw ñoom ñu dugga ma wàcca dem ci kasam ma ne ko kasama yoo xam nga ne fii parce que man tay bu state state house dafa mel ni gan laa fa woon ñama fa fekkoon boolewu ci seen boppam mooy soldaar ya fa nekkoon you know bëggumaa wax li tax nag bind naa ko ci suma bopp bi tay bu bu jaw ne mooy woon commande bi gannaaw yi kabaa baajo waaye you know dañ ma doon crime mel bokkuma ci ñoom ma ne kasama fii man mosuma kasama rek laa fa amaloon affaire ki maa doxalal il faut yu bëri dañ ma ko daan ayee foofu moom moom ci daan ci daan jàppale sax ma ne ko man fii du ma fi toog su dee li ma dégg déggal ki am weapon fi am weapon yoo xam ne mun nañoo taxaw suñu waree taal réew because man xaw ma ñana ci bokka suñu waree taal dinañ mun a protect Banjul because xam naa weapon si nekk juddoo ma ne ko mooy marine unit bi parce que marine unit bi ñu ngi amee weapons yoo xam ne weapons yu am doole ne suñ leen mënee génnee ci gaal yi ñu teg leen mount leen ci trucks yi kon mun nañoo protect ba ñun kenn du fi dugga ñi ñu jaay bal lu fexew mu ne ma baax na ci laa taal suma oto bi dem ci marine unit in fact wax naa lu doy tey li ma wax dinaa ko continuer loolu di waaw dinaa ko continuer loolu nii ma expliqué leen li ma xam ci affaire coup d'état bi li ñoo wax yëpp lii la demee na lii la demee yëpp nonsense la man li ma leen a wax dama leen naa jox evidence witnesses yaa ngi ni ngeen laaj leen dinañ leen wax li saar di wax nii dëgg man li ma ci regret léegi am na yu ma ci regret yoo xam ne dama ci ci suma bug bi ci suma bug bi li ma ci regret rek mooy ne am na yu bëri mer laa ko doon bindee time boobu dama meroon parce que dama doon kii ne lii na am kii dafa def de de you know ba pare <laughs> tombee nag ne you know euh, boobu ñu ma koo ci armée bi dem na Amérique you know ak suma joboor ma yaakaaroon yëpp tas yooyu yëpp dafa bokka ba pare yi ma leen wax rek. maa ngi leen a expliquer ni ngaa amee el asylum time boobu America ni ngaa amee asylum time boobu America ak ni ngaa amee asylum léegi America dafa utee guddee bëccëg soo book bi dama ko war a bindaat ci ceeb yooyu parce que suñ xamoon su doon time bii la after eleven nine eleven attaque bi ñu def New York ni ko doon kenn du ma jox asylum parce que indi eighties maa ngi woon America fa laa jàngee illegal ci dëkk bi dama fa demoon assez visiteur rek waaye ma toppatoo dem fa school ba graduate ba génn loolu soo ko defoon Amérique bu njëkk ba léegi soo fa laajtee asylum dañoo bañ baa nga dem dafa liggéey soo laajtee asylum léegi dañ kaa bañ loolu after nine eleven ci la ci yooyu yëpp laa wax ne su ma ko doon bind dinaa ko ci waaye li ñoo wax naan saan saanel fen fen dara nekkul fen ci suma ko bu yëpp dëgg la fii laay dem ak yëpp ba loolu ma continuer ko waaw su neexee yàlla unless sañ na something else loo xam ne important na ñëw na loo xam ne war naa koo wax ma suspend ko waaye lii dinaa ko explain because of 22nd July la te time bii la neex pour wax li xewoon that time wasalaam